Sall def na dialogue national bi gis waaw liñ ci mën a jàngat mooy euh, dafa dajale ay nit pour ñu defal ko li nga xam ne xam na ne que du yoon xam na ne que euh, suñu sart ndeyu réew mi maanaam constitution bi mayu ko ko comme sañul taxaw moom ci kanam ci kanamu ñëpp assumer parce que du nit koo xam ne moom li muy def comme contrairement ce qu'il day bàkku du bëri. musul bëre waaw bàkku moom mën na ko wante bëre moom bu jotee soit mu ne yow doo ñëw ci arène bi tey jii euh, bëre soit mu wutal la ñoo xam ne ñoo ko ko téyal téye tànk yi téye loxo yi mu taxaw ne day bëre donc noonu lay def su ko defee mu seeti ay nit yoo xam ne ñu mel ne défilé de mode man xaw ma collection 70 xaw ma collection 80 ah euh, yu Mandel Couture rek ñoom Juma Jang Jaxate ñu génn foofu sol seeni yére ah ñëw di ko waxal fekk dëkk bi 75 pour cent population bi seeni i ay morom lañ ils ont moins de 35 ans ah bi collection yooyu bi ñuy génn yéen juddoogu leen sax ngeen naan ñii fuñ juge donc loolu la non c'est pour faire un peu de mu par rapport à la gravité de la situation ñooñu ñoo taxawoon foofu di wax parce que dara gënul euh, garaaw yow ak situation bi nu mu demee ak jalgati bi àddina bi yëpp di ñu seetaan boo taalee télévision yi ñiy wax Ukraine Gaza teg ci Sénégal. yow ngay taxaw di kaf naan euh, euh, deux mille trente lañ dem élection deux mille vingt xaw laan et cetera c'est pas sérieux et donc on les a choisis ñooñu dañ leen tànn pour ñu ñëw euh, def yëfu yëfu caaxaan daal fekk situation bi du yëfu caaxaan c'est extrêmement sérieux donc ñooñu la jël pour jalgati ak constitution moo tax ñu taxaw tey ñu taxaw tey ñëpp àndandoo ñu rafetlu nag li xew yéex na yéex na wante ba léegi rek ñu jàpp ci bu baax a baax a baax a baax a baax ba kenn kenn kenn kenn du def défection comme niñ ko daan def <laughs> waxee bi ñu demee grève ñëpp ànd société civile politiciens yi ak euh, euh, organisation yu bari war a ànd war ko delloo ci yoon jàppale ko mu dugg delluwaat ci yoon su ko deful ñu jël suñu matuwaay rek. waaw comme euh, mais du waxaale. affaire bi du waxaale ñu marché déedéet dañ ne fii moom da boo duggee ci boutique bi ah njëg gi dañ ko bind ah amul kenn kooku nekk ca bunt ba ah nekk ca kees ga su la mayee leneen ci poche am la koy jële def ko léegi nag fii amu fi dara loo xam ne dañ koy waxaale dañu def waaw mais léegi non fii ñu taxaw mooy yow yow yow booy dem yow boo duggee ci boutique boo xam ne këy njëg gi dafa leer da ngay yóbbu ak sa xaalis bu bët ah mooy li gën ci yow si lu la fa fekk yaa ko teg sa bopp wala nga génn te doo am marchandise wala nga nekk fa di xuloog di wax naan ne Sénégal dafa bon tey jii kii dafa soxor fekk loolu yëpp yaa tooñ sa bopp boo gisee njëg gi te amoo ko dellu voilà donc euh, tey jii pour def analogie rek ne dëkk bi dafa war a dellu ci yoon ñu am charte ñëpp taxaw ci moom ci boppam mu ñëw 2016 am yu ci yokk yokk ci yoo xam ne sànni caabi ji ci mbedd ma tey jii nag mu ne du ci taxaw loolu dafa day nekk problème moo tax de temps en temps dama naan est-ce que xam na lu mu yëngal est-ce que xam na lu mu soppi léegi nag bu taxawee naan ay 2 juillet 2 juin la koy def ak tey di taafantoo ne dafa am ay ay ay ay euh, événement religieux ay gàmmu weeru koor ak yooyu ñu koy fàttali ne que 25 euh, février boobu euh, ba mu waxtaanee ak waa kër euh, Daaru Muxti dañu d'accord ne ko ko naaw bésu woote bi la nañu def beneen bés ñuy fàttali que ne fii amoon nañ fi Covid ah Dakar amu fi woon màggal amu fi woon kii amu fi woon woote benn bés rek la woote benn bés rek la te bu topp loolu moo tax loolu moo koy won ne ko ñi taxawoon ba jël date bi mu bàyyi lépp lañ seet. lépp lañ xool lépp lépp lépp lépp la ñu xool lépp lu ñu mën a gis ne que mën na euh, tax ba sénégalais yi bés boobu du ñu am jot lépp lañ ko saytu ba mu ko teggee nag ci la jaxase yëf bi nag moo tax mu metti tey jii ah muy gis nag fan lay banqa mais nee non non non non gis nga prochain président bi léegi lañ koy réglé parce que ni ngay opposé xool leen bu baax opposition yi ni ñuy opposé noonu la ñuy téye pouvoir man dama koy wax toujours na ni ngay opposé noonu ngay yoree noonu ngay yoree réew mi donc dinañ ci seet seen seen démb dinañ ci seet tey ni ñuy def dinañ ci seet euh, ndax dañuy jalgati pour bokk ndax dañuy compromis pour bokk ndax dañuy weddi seen kaddu ndax dañoo yegg si ak ay milliards fekk euh, vraiment seen liggéey mën euh, demeewul noonu ñoo ngi mën a yem donc loolu yëpp bu ñu ko seetee dinañ xam lépp lu ñu war a moytu pour que képp ku fi ñëwaat yore Sénégal en tout cas ñu kii. du dem euh, waa di wax rek ne amul benn loi amul benn yoon bu mën a euh, fexe bokk fas yéene def lu bon def lu bon ndax loi yaa ngi fi di tere sàcc terewul nit ñaa ngi sàcc loi yaa ngi fi di tere yu bari ba crime sax def ko crime ba léegi mi ngi am kon loolu mooy wan ne que ñun suñu taxawaay ñun askan wi suñu àndandoo ak suñu taxawaay loolu lañu ñu war a dëgëral mais bu ñu compter ci keneen fi nekk tey ku fi nekk suba ndi xalaat ne que moom euh, xëy na mu baax xëy na mu bon loolu du dëkk bu dëgër daal. waa loolu moom ay waxu kasaw kasaw la parce que euh, d'abord ministre am nee na euh, li xewoon ci affaire u ay aji Sarr ak Mame yi ñaa bokkul ci amnistie bi te su ma xalaatee su ma su ma juumul. benn bi mi ngi ci des na benn appel mooy affaire wu Adji Sarr bi euh, benn bi daan nañ ko ba moo ko tere bokk élection kon loolu bokkul ci amnistie bi kon ay taafantoo la ah li am ba am mooy Sénégal dafa signe dafa joxe kàddoom ci ay ëtt yoo xam ne dañ naan képp ku def lu jëm ci rey nit lu jëm ci mettital ko ba mu naan koy wooyee torture amul droit am ne ñooñu amu ko droit daf ko signé kon am amnistie bii bu ci boolee ñooñu loolu jalgati na ay yoon yoo xam ne euh, bokku ci euh, waru ko def donc am bi tey ji boppam la ciy seet ak ñooñam euh, yi nga xam ne li mu leble bañ ko ko fay waaw dafa kii ba pare bëgg daw wa léegi nag loolu moom mënul am parce que du sax moom rek mais ëllëg ëllëg est-ce que nit mën na ñëw sal sot jël sa ay oto def ci ay nit ñu ñëw fekk ay xale ñii tiire ñii rey fekk ay nit ci kër ñii dóor ba mu damm a ah, ñii sotti ndox ci ay góom a ah, ñii jël boom famille Bodian a ah, dañuy seet benn nit rek bu nekk fas Gueule Tapée ñu ne dafa yore woon ay cocktail Molotov nga jël une famille sept personnes jë ba ci bébé jël ñëpp mais loolu yëpp ñu bàyyi ko mu dem non loolu déedéet kenn du ko bàyyi mu dem lim mu fi def lu garaaw la te bu fekkee ne dañ koo bëgg nëpp nëppal bàyyi yoon ah loolu du baax ci dëkk jërëjëf. président hmm. defe naa ne ku bëgg a dem doo toog di tàggoo bés bu da jóg dem. na jóg dem. ku bëgg dem doo toog di tàggook di tàggoowaat loolu mooy mooy mooy waaye doo leen ma téye waaye doo leen ma téye kon boog na jug dem te bàyyi tàggoo yi doy na sëkk te buy wax ak askan bi tamit na moytu yooyu xarale na moytu yooyu xarale kan la ko jublu ci kan la jublu lan la jublu ci buy defee noonu lu mu def rek am na lu ko calculer am na lu muy def yooyu daal te calcul jeex na daal na jóg rek ñibbi doy na sëkk <laughs>